Ibra ma lay nuyu bu baax a baax a baax di la jaale tiis bi nga xamante ne dal na monde làmb yëpp muy génn àdduna suñu papa booy Bambara euh, bokk nga ci ñi nga xamante ne jaar nga ci ay loxoom yan témoignage nga ñu mën a defal. waaw li ñu mën a wax rek mooy dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rek euh, di delloo lépp suñu borom moo ñu indi moo ñu yóbbuwaat ci boppam kon lu mu ci defee lu métti métti métti rek nanu neex waaw mbir mi nag doon na mbir moo xam ne ñëpp a ko bokk kenn ku ne mën nga ko jaar sa morom euh, gannaaw bi ne doon na sunu doyen boo xam ne amul kenn ku jaarul ci moom kuy takk ngeem senegal rek jaar nga ci moom parce que tëgg na mbapat nga dem fa am fa xam-xam am fa taraanga kon kooku ñaanal ko moo ñu war ah ñu di ko ñaanal rek yàlla jégal ko te yërëm te xam ne ku laabiroon la ku wàcce woon boppam la bal li ma ko gën a nawee mooy su ngeen dajee te mu som te mu sonk yow jikko jooju gis naa ko ci ñoom ñetti mbër muy Birahim Ndiaye ak Kati Diop ak Boy Bambara buñ soloon jasineer foo leen fekk mën na ñëw bëre ak yow loolu woyof rek ko moon dañ doom di fa def sët di def ak seen i morom kon li ñuy desa ñun ñu fi desandi rek day ñaan yàlla jégal ko te yërëm waaw. mën a fàttali ci moom. waaw bari na. parce que amoon na jom ci li muy def. fekk naa combat yu bari. fekk naa fu mu daane mbéy fu mu daane faga deux mi ak ñu bëree bëree bëree bëri ñoo xam su ma ko lim tey du am nekkoon na koo xam ne toll woon ni mbër yi ci taay ñëpp a ko sutoon mais ëpp ko woon doole nag te saa yu jàppee am na man mani na boo xam ne noo ko mën di jël mën na laa botti loolu moo nekkoon forum ma seeraan ci moom nag lu bëree bëree bëree bëree bëri booy bambara doon na mbër moo xam ne heure bu ñëwee bu tojee ndaali rek amateur yëpp mënoon a ñibbi day wër ak làmb lu mu yaatu yaatu lu mu rëy rëy rëy rëy loolu mbër yi xam ne bëri mënuñu ko dana ko def dana jëw dana tëbal pendant ba géew bi jeex te mbër yu bari ba la ko def loon du ñu ko def euh, muy ko xam ne ku gën ku gëmoon sport ku ñu nag lu ba raay yu bari ci Sénégal kon tey rafetoon na tey jii rek ñu sargal ko sargal boo xam ne benn mbër du ci Sénégal waaye nag xañ na euh, euh, weesoogut waaw weesoogut waaye ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko te xam na ñun daal am nañ ci moom teraanga am nañ ci moom it ni ñu koy waxee xam-xam waaw loolu daal mën nañ ko ko seede moom